ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare lamb saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa sunu lamb ak jàngat bu yaatu ba mu def ca mbër ya ñuy wax VIP millions yu bari ya ñuy laaj ca lamb ja loolee la sunu lamb di jàngat mu ne Modou Lo ak Balla Gaye 2 ku ci nekk laaj nga 150 millions Ama Balde moom it laaj 100 millions Modou Lo ne digganteem ak Ama Balde 150 millions yuy tojut dërëm lay laaj Ama Balde moom it ne ku ma fayut 100 bëre téeméeri millions laaj ñuy wax diggante Boy Niang ak Balla Gaye 2 Balla Gaye ne ginnaaw 150 millions moo xew man it ku ma fayut 150 du ma Mbergane jot na nag mbëri delloo seen xel nañu wàcc seen bopp te xoolaat fi lamb ji toll depuis premier octobre ba lamb ja tijjee ba léegi nii benn VIP bu ci am combat loolee li ko waral mooy 150 yeeg 100 yi VIP boo ci mu tuddal la ay millions yu bari rax ca dooli moom Max Mbergane lamb ji bu amul a fay ak lu ko kon ñoom mbëri war nañoo delloo si waat seen xel te xam ne affaire yi yombul ngañ jaañ na ca tonn ne mbëri de dañoo bëgg suuxal promoteurs yi man ngañ jaañ depuis 2008 laa commencé alerter ci kase yi depuis 2008 ba léegi maa ngi naan naan kase yii nii fa mu jëm ak ñun dinañu bëgg combat mu tañu waaye tey moom la ma doon wax di ko yuuxu tey ñépp ci teg seeni bët millions yi ni toll nag amul benn promoteur bu ko mën a fay te àndoog sponsor yu ko jar lu ko mooy ku ko def da nga la deful dara ku bëgg yaa fi def lii yaa fi tëggoon combat bi ba dugg ci yii bu lamb ja jeexee nga des ak say bor bu ñu demee ca diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang promoteur ba ca nëbbatu woon feeñ na journal élection journal ba xam le ne wax ja wax ja yépp Gaston Mbengue la Gaston Mbengue daal di tontu ne diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 combat boobee tëgguma ko tëggluwuma ko doxuma ko doxluwuma ko nekkuma ca suuf nekkuma ca kaw man Gaston Mbengue ku ma xam-xam ma ci am fit bu may taxawal combat amul dara lu ma ciy ragal dama naan fàng dàng ñépp xam ne Gaston Mbengue mooy taxawal combat bi journal ba daal di feelu ne Gaston Mbengue day weddi ca kaw rek waaye mooma boo waxee ci kaw mu ne du moo nekk ca suuf di kurti kurti wax fu wóor lañ ko jëlee am nañ ay xibaar moo nekk ci biir le combat bu ñu demee ca taay si nga dañ fay fekk seen porte parole ba lànjang Sa ma fi génnoon ne Eumeu la soxla lànjang teg na ko ci àndam moom Sa am na ñu ko làmb booleel ñu bokkut ak Eumeu digganteem ak Yékini Junior ay at a ngi ni amateurs di ko laaj te bu mu fàtte digganteem ak Reug Reug amateurs soxla nañu ko bu dee ñi war a bëreeg rek am na yeneen mbër yu gën a ngir bëreeg Eumeu buñ jàllee ca làmb yi amoon démb ci le ba ñu mën caa jàpp ku ci mel ni ngóor ndef fay Pape Maroon ak hôtel Dior 2 Doudou nga fa woon moo jël mise ba rajaxe adressé boobu fekk na Jax production ca deuxième journée ca terrain gi foofee Serigne Ndiaye 2 bu Fass moo fa réalisé ab 100 pour cent ak Ngaan Seck ñëw finalu Serigne Ndiaye 2 jaay ko doole ci demi finale yi nag Serigne Ndiaye 2 moo éliminé Ngel John Ngaan Seck moom it arrêté góor a sok caaka fay pakala ak Obali ñépp nga woon gi bu dee ca lese ya ngóor ñaax ak Abou Assef yu ne abu asef ba doon dox ci diggante Mamadou Thiam ak Mburong Ndambe foofee it Mamadou Thiam dafa won doole Mburong Ndambe bu dee ca Mbour Zil bu Sali dafa daan Lioraay premier grand combat ca Ibamar ak Mouña production BMW dafa écrasé Petit Baboy ci 5 minutes 35 secondes la bëreeg moom jàppanteeg moom ca xabal ko wéeru ko ñu àgg suuf fa ñuy jeexale mooy ca ARELS di association des responsables des écuries école de lutte du Sénégal ñoom waa ARELS ci njiital Malick ñi ngi bokk na ca jël benn manager dootul mën a tee engagé écurie bi benn mbër tamit dootul mën a tey jël combat te du jaar ci écurie bi rax ca dooli ñoom waa ares ñu ne ren fas yéene nañoo amal suñu mbappat tour championnat de lutte bu neex la ñu fas amal ñu nga cay waxtaan jërë ngeen jëf mbokk yi li moo li gën a fas ci yéene gaay ñi leen jox dig daje ba ëllëg incha allah Prod présente l'événement de l'année à Deux talents, deux styles, les deux frères réunis sur une même scène pour un concert